donc dama suis fi ici li ici, groupe La Poste di remercier bu euh, monsieur le directeur général le président du conseil d'administration euh, l'ensemble des directeurs des secrétaires généraux de syndicats, syndicats des présidents des amicales du groupe La Poste Nous avons teertu ci euh, direction générale de La Poste Je remercie maa ngi remercier bu baax baax ci bu ma di féliciter bu monsieur le directeur général ci taxaway bu bees bu mu am fi ci biir direction générale de la poste parce que gis nañu buñ ko falé ba léegi euh, toogul guddeeg beccëk mi ngi out ay solutions immédiates pour régler les problèmes récurrents yo xamné poste am na ko fan yi ak ak ak at ñu génn yépp gis nañu tamit taxaw na si taxawaay bu am solo moy bi ëpp solo moy d'abord fexé ba euh, rétablir la confiance sénégalais yi seen qualité ci poste delusi parce que buñ fatané que poste ñoko mom poste suñu suñu entreprise nationale dirigée par que par des sénégalais sénégalais sénégalais ñoo ko donc loolu baax aussi que ñëpp ba ñëpp xam ko te léegi bépp jafe société bi amoon tey jii amee benn plan de relance un plan de restructuration boo xam ne commencé nañ koo liggéey léegi commencé liggéey depuis depuis depuis Le président de la République le ci 23 novembre 2023 ci conseil 2022 ci conseil des ministres bi euh, na instruction ak ndogal yu mu yu mu yu mu yu mu

bokk na ci difficulté yu ëpp solo bu tax poste tey poste am am am ay jafé jafe leneen aussi problème management la équipe bi organisation bi contrôle corps de contrôle yi donc euh, liguey bi euh, euh, côté personnel bi aussi la question de la performance parce que liguey bo gis dañ ko liguey kat bo gis dañ ko wara dañ ko wara évaluer dañ ko dañ wara a xayma ses performances xol lu muy liguey amna solo wala amul solo xol est-ce amna am na am entreprise wala amuloo njëriñu entreprise bi loolu yépp ak formation agent yi aussi donc loolu yëpp bok ci yoo nga xamantene baxna que nous euh, xoolaat ko bu pour que poste bu bi bu ñu am suba du poste bi poste su bi poste bi vraiment euh, am le critère de performance les def dañu les bonnes pratiques ñu def ko té ma ngi effectivement que état du Sénégal mom taxawayam ci poste euh kenn mënu ko lam lamé parce que déjà bép bor état au niveau de la poste par rapport au bourse familial. il euh, 42 milliards 30 milliards en 2021 et 4 milliards en mois de juillet 2022 aussi, aussi euh, subvention chaque année à la poste la rémunération du service universel euh, quasiment doublé parce que nous 3 milliards de Rennes, 6 milliards de Rennes. mais di vous di xamal poste une entreprise là, une entreprise sénégalaise là, nañ ci parce que ay sénégalais ak ay sénégalaises ñoo ci liggéey ñen ñoo war a jàppale gunge en tout cas le président Macky Sall euh, a pris des mesures fortes pour que vraiment société bi bépp jafe-jafe bu mu amoon mu nekk euh, mauvais souvenir maa ngi ciy ñaax na bu baax personnel bi parce que ñom ñoo wara a ci ci ci combat bobu ñoo wara a ci euh, liggéey la société bi tey jii a confiance ci biir population bi. gis aussi même salaire yi yi ñu amoon difficulté pour faire ko fu mu nekk effectivement tout est rentré dans l'ordre et que salariés yëpp effectivement dañ jot seen salaire euh, ci soit tey wala suba li jëm ci ay agent agent agent de la poste